japp Pape Alé Niang daat nay laale ak ñaari gendarme yi nga xam ne gisuñu leen woon kenn ki la ñu gis kenn ki ba léegi gisuguñu ko maanaam dañoo dem ba di ko méngale ak lu jëm ci wàllum assassinat maanaam dañu leen a rey journal bi nee na njabootu famille Didier Badji ñoom nag mbir mi naqari na leen loola ndax ñoom nee nañu ci plainte bi kii nga xam ne mooy Bah Diakhaté bokk ci APR dem na sax bay wax ne am na ci information yoo xam ne laam-laameewul ne information yu wér la dem na tamit bay traité ñaari gendarme yi de traître journal di libération nee na en tout cas li am ba njabootuk famille Didier Badji ñoom yóbbu nañ fa mbaxana doone benn Amath Suzanne Camara ak kii nga xam ne mooy Bah Diakhaté ndax dañoo njort ne ñaar ñi kàddu yi ñu yëkkati kàddu la yoo xam ne yu doy waar a doy waar la yéen kaay gi da la nee na nag Pape Alé jàpp nañu ko dugal ci kasu bi Fadilou Keita mi nga xam ne ci Pastef la bokk moom tim jàpp nañ ko dugal ci kasu bi waaye nag journal bi nee na lii mooy ku mu am ndey ak ku mu wax na ko te moom tim justice boo xam ne maanaam ku ma mu am ndey la ak ku ma mu amul ndey yéen kaay gii de libération nee na ni ki démb am na benn koor boo xam ne gis nañu ko woo nañu sax ñi nga xam ne ñooy njabootu gendarme bii di di jabat ji ngir nag ñu daal di koy xoole ca section de recherche waaye nag biñ ko xoolee nee nañu du gendarme di bat ji yéen a kaay gii di vox populi nee na koor boobee nag ñoo ngi ko gisee sa diwaanu Saint-Louis waaye nag bi ko gaa yi xoolee daal nee nañu du di jabat ji yéen a kaay gii di la sax nee na Fadilou Keita nekk membre ci Pastef nekk coordonnateur ne meeku tuura ni ki démb dañu koo daal di mandat dépôt ndax nee nañu dafa bindoon ne état bu Sénégal seen loxo génnul ci disparition Didier Badji ak Fulbert Sambou daal di yokk sa mbind ma wax na nag yaakaar naa ne xanaa réyuñu sama frère bii di Didier Badji yéen kaay gi di enquête nee na Pape Alé Niang ma ngi ci kaso bi démb daal nay jàkkaarloo ak juge deuxième cabinet ngir nag mu daal di koy déglu ci ak xóotal ci dossier bi ginnaaw bi mu ko dégloo ba pare ay avocat ma jamono ji nag sàkku nañ ab liberté provisoire waaye journal bi nee na Pape Alé na lool ngir lu jëm ci wàllu wér-gu-yaramam gi mën na la wér-gu-yaramam gi sooxe na lool kaay gi du source nee na avocat Pape Alé Niang ñoom nag ni ki démb sàkk nañu ab liberté provisoire ngir journaliste d'investigation bi jamono ji procureur la ñuy xaar yéen kaay gi di Walf Fadjri nee na jàpp gi di jël di dugal ci kaso bi ma ngi mel ni tulleeg man le waaye nag loolee mën naa yàq image su Sénégal te nag mën naa indi sax frustration générale ci réew mi te nag lii nag ab calcul la boo xam ne calcul bu baaxul la boo xam ne nguur gi ñoom ñoo ngi koy def ndax jàpp di dugal ci kaso bi ñu bare bari dañu ko ñaawlu ba fa ñaawlu yem yéen kaay gi di La Tribune nee na ni ki démb musiba am na ci Petersen ndax dafa am benn bus tata boo xam ne moom mbëkk benn policier bu nekk dikk mu daal di ñàkk bakkanam yéen kaay gi di wal fa jëre ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko muy weddi moom njiitul Pastef meeru Ziguinchor nee na démb dafa gis ci presse bi ñu wax ne préfet bu Ziguinchor daf ko yóbbu sa kanamu Cour suprême ngir nag ñu daal di annulé tur yi nga xam ne tudde woon nañu ko ay yoon maanaam ay rue ak ay avenue Ousmane Sonko nee na musul yëg ne préfet bu Ziguinchor yóbbu na ko fa Cour suprême nee na ci presse bi la ko nag li nga xam ne moo am ci mbir mi mairie bu defee délibération ba pare maanaam préfet ñaari weer la am délai pour nag daal di def ab recours cour suprême benn weer la am délai ngir nag daal di àtte ci mbir mi te Ousmane Sonko nee na ba mu sopparñee ay rue ak ay avenue boobaak léegi ëpp na juróom-ñeent ci weer waaye nag même am na nee mbir mi dana ko contesté fa mbaxana doonee benn yéen kaay gi di réew mi ko di cee xëy séq waxtaan wu yaatu ak waykat bi di Modou Touré nekk guitariste kat boo xam ne bu ñu ràññee la muy dund ca diwaanu bitim réew ca Angleterre journal bi nee na ci famille Touré Kunda foofee la bokk boo xam ne wuutale ñoom jamono ji ma ngi waaj ab albumam yéen kay gi di esat nee na quart de finale tey jii bu tàng jër dina am diggante Angleterre ak France waaye diggante Portugal ak ñi nga xam ne ñooy waa Maroc journal bi nee na niki démb quart bi nga xam ne moo amoon ci coupe du monde bay xew ca diwaanu Qatar Argentine démb moo éliminé ñi nga xam ne ñooy waa Pays-Bas Croatie démb éliminé Brésil Neymar bu Brésil démb dafa jooy ba maara détaillé nee na sax jamono jii yaakaarul si ci